thank you Mandanyma tumal tuma Ready tuma Mandanyma tumal seen kër benn xarit papa moo ñu fayal cours particulier foofu laay dem defi ko particulier cours particulier joojo xam nga man bëgguma ngay dox bëgguma ngay dox xale bu jigéen bëgguma ko muy taxawaalu walla di doxe mais comme ay cours nga wax dama ciy sawar ndax man sa jàng moo ma gënal lépp ma lay wax ni soo demee foofu jëkk na nga téye sa làmmiñ téye sa bët bul xool bul dégg bul soxla àllu jàmbur ndax man nii sa ndey gis nga ma fi ma toog laa toog daw ma dikku ma mais comme jàng nga woote te man sa avenir moo ma a lépp ci sama àddina dinaa la bàyyi nga dem naa la bàyyi nga dem nga jàng sa jàng mais li ma la wax bàyyi ci xel tamit parce que gis nga tolof tolof yi ñu nekkee sa papa barki démb la génn kaso ci lu mu deful yëgul tinu ñu nekk ci loolu kon nag bu ma indi benn problème demal nga jàngi sa jàngi nga ñëw toog ci kër gi te nga wax ci. dégg naa la yaay. ndax man mii sa ndeykat daw ma de daw ma dikku ma.

en fait góor a amoon nag toogaay parce que damaa nekk ci yoon dama noonu naa profité jaar fi pour ñu waxtaan. Amina li may wax nii seede nga si parce que góor a mi xam nga ni sama diggante ak moom li olof Njaay naan côté ba moom ñoo ko ànd depuis ñuy nekk xale ba nii ñuy wax ak yow amul lenn ñu ñu mus a ci lu ñaaw muy sama xarit intime di sama doomu ndey bu guddee maak moom la bu bëccëgee maak moom la. yéen ñaar nag li bëgg xamal que ni des fois gis na say goor suñu borom na ci loolu ñu ko dafa bëgg ñaar nit ñi kenn ku nekk mu bëgg xam sa position donte mo ñu xam mais des fois dañuy ko sétlu bëgg xam ba xam wala c'est vrai ou faux motax ci ñaar ñu ñaar xam dañuy mu qu'est-ce qui se passe réellement. mais yéen ñaar moom mention spéciale kenn ku ci nekk gis naa sa taxawaay mat sëkk am naa li ma bëgg nga xam ko mooy góorame ku la yéene la ndax des fois ñu toog foo xamante si nii dama naan ko góor nañ wax lu jëm suñuy projet bopp mais day def organe wax jëpp da koy concerné wu ci yow. ci teraanga ju mu la bëgg a defal fi mu bëgg jëm ak yow yéene goo xam ne am na ko ci yow te li ma lay wax Amina yaa ma ko gën a xam parce que teraanga ju nekk góor lebal na la teg sama te lii may wax maa ci mat seede ndax maa la takki woon. jël la dugal la ci kër gi te musoo fee def lu ñaaw musoo ko fee wax tamit aussi qu'on se dise la vérité fiñ ñu la teg ba tey jugoo fa waaw man nag bu ma fi nekk di wiiri wax ji parce que c'est nous dans nous góor mii dafa ñëw sama kër tout à l'heure waxtaan ak man wax man ni dafa bëgg ñaareel dafa bëgg takk ñaareel. mais Seck non mais Seck tu mens mais Seck yow man ma ñëw ci yow nga nekk sama genn war a nekk sama xaritu benn bakkan. ma ñëw waxtaan ak yow parce que dama malentendu ak sama jabar ma kii na mais je jamais parlé de deuxième femme nga ñëw fii di ma wax ñaareel ah non arrête de li ngay wax ni yow la engagé engagé wu ma non ces propos ne n'engagent que toi. <laughs> astafurlah mais loolu man sekk. sekk ba ci la. temps yi dafa mel ni na nga révisé de te nous ont tellement baissé. kenn naa wax benn affaire man instant bi jàng nekkatul sama xel bi dama bëgg waxtaan ak sama papa mu financé ma may dem Dubai, di dem Chine yooyu laa gëm mais j'ang, bi dafa metti Sénégal da ngay J'ang, j'ang, j'ang, xoola Do liggéey do def dara je te jure instant bi au moins envie j'ang. nekkul ca sama xel dina si yooyu. ndeysaan pourquoi vous les les les les filles des riches vous n'êtes pas consciente de ce que vous avez.

Hmm? da ngay jàng Sénégal jàng bi dafa metti tellement doo comprendre dara da ngay jàng xëy doo am liggéey yooyu nekkuma si de nekk si yooyu nag. Fabi yow lan moo la daal pourquoi vous les enfants ah. leen defal lépp desalu leen dara mais bëggoo leen xippi xool tey jii su ma nekkoon sa place. Hmm. dinaa jàng ba fu ja ba jàng fu jàng am. mais Fabi est-ce que tu vois tout ce que tu as? papa manqué dans une belle maison sa chambre dara manqué aussi. gis nga ngay man bima ma batay. Bima ñewé sa chambre la genre matla yoy non ci bir man ci souf lay teud. Matla sa awmako basan lay ci te pourtant ngi je fais tout pour continuer mes études. samay parents sama papa teel la divorcé ak sama yaay dem bàyyi ko sama yaay ci misère boobu noonu mu gaañu bàyyi ma ak sama tante may teg lu metti fa bi pour ma jàng sa problème la des fois bu xolam neexul day ñëw fekk ma may jàng mu fay lampe bi dem yoonam je serais obligée ma débrouiller wu jël sama benn cent franc dem jënd sondeel taal ko ndax lan bëgg a jàng bëgg a tekki génn si lii ma nekk yow nga am lii nga am nii yëpp nga ne yow da bàyyi commerce bi bañu ko c'est vrai que le commerce le bar mais si tu as am diplôme assurer un avenir tu as un commerce ça, dinga, connaissance les connaissances qu'il te faut pour que tu aies un commerce commerce normal tu as ci Fabi chaque jour il y a ay problème découragé loo sensible

donc quand tu as rey sa bopp man j'ai pas besoin de creuser à profondeur pour xam moom li mu def ak li mu deful. mais góor appliquer c'est que lan lay appliqué c'est que yow da nga ñëw sama kër pour bëgg ma saraxe yow c'est que da nga ma bëgg sacrifier c'est que lan laa la wax dama am problème ak Amina mais pas nga ñëw pour jaxase sama kër tu veux me mettre en mal avec ma femme je t'ai jamais dit ay deuxième femme jamais. Les góor man lan laay doon fi ma toog lan laay doon. ah mais waxal li ma la wax. da nga bëgg a yàq sama der da nga bëgg a def seytaane ci këram Amina tamit suñu nawle. je vais péter les plombs yow de temps. wax dëgg jëpp nag mu jeex pour pour lépp kenn xam foo yow naa fex nga kon naa fex nga Amina tu nga kii ni nga koy gis nii ah un peu matt ba mu dagg mu topp ca di ëf maa ko sañu wax dëgg dama koy wax chaque jour mu ñëw fi vers vingt tu seize heures dañuy wàcc seize heures dañuy wàcc su ma nee ko ñim bi day bañ jàdd ci àll bi.

ni ma da ngay tak jabar kaay wax ak Amina ya ci mantere ma ñew nga rangé wut bëgg ma def du ma damay bañ. mais ne l'écoute pas il hein. n'écoute damay déglu nopp amul kibeer sa france dof yi bayiko ta nga jëm a rangé woo ci yoon góor sa bët bi nak soo fa nga sa doomu nday la koy wax bàyyi sa ndoxaan gu metti gi fekke da nga bëgg tak jabar takal so bëgg amo fit du takk waaye loolu doo dugg ci tak jabar yow amo fit amo fit loy tak jabar yow bo tak jabar di nga jeng très bien je vous ai entendu et là de toute façon je suis très content hein. content naa ci seen mais yo, je suis content de toi j'espère que dégg Limlor, quand même ces conseils sont à prendre comme lettre à la poste yow on content content trop ci yow dégg Et mais toi tu m'as déçu À tout ce que j'ai fait pour toi

waxal sa sa tante bi nga nekkal que soxla naa ko bëgg naa waxtaan d'accord mais sama kër gi jàppal ne c'est ta maison je vais t'aider yow moom ku ñàkk jom tu m'as déçu tu m'as vraiment déçu je pensais que loolu nekkul sa bopp xalaatu loolu

sëriñ mënu ma fa dakh mamit diko di ko ni kon fi la tok wax ba fajar. mais ma sama jàmm arrêté wax toppal bu toll yow nan da ngay toog ñaar. attendez quoi ah. yow ragal nga déjà. tu es peur. Hein? alors que tu veux marier un autre femme. waaw tu jam mais c'est que kii wérul ah. il veut me mettre ma femme en mal avec ma femme. sama compteur xol Amina nga bëgg ma jaxasee ak moom. et puis euh, vos bulletins là vous avez fini votre votre premier semestre. oui exactement. seen seen moyenne yi génn tu as combien de moyenne toi. J'ai eu 18 de moyenne. Excellent, ça c'est... Tu as eu un encouragement avec, euh, pour, le, pour le conseil des profs. Et toi Quand tu as le moyen, tu as, tu as ta moyenne. Où, où est ton bulletin Oui. Hum, n'as pas payé, là. Hein. Où est ton bulletin Enfin, Goro signé. Goro m'a signé. C'est Goro qui doit signer ça ou c'est moi

sama papa dafa teel a divorcé ak sama yaay sama yaay ci biir misère boobu mu gaañu bàyyi ma fekk sama tante kooku di ma teg lu metti lu lu xalaat rek ci kaw suuf mu ma koy teg dem naa ba su may jàng te xolam neexul day ñëw fekk ma ci néeg bi fay contactu làmp bi dem léegi je ma me débrouiller pour jël cent francs dem jëndee ko sondeel ñëw taal di jàng samay leçon pour lan pour mën a am ay diplôme tekki liggéey genn ci situation bi ma nekk pourtant toi t'as tout yow dara manqué wu la tu te tiens devant moi pour me dire que dangaa bëgg a jàng dugg ci commerce Fabi sois consciente gis nga man bi ma duggee sa néeg gis li fa nekk ma la fende j'étais un peu jalouse parce que lii nga amoon mosuma koo am ci àdduna te su ma sañoon am ko mat laa sax aw ma ko basan laay lal teg ci drap mën a tëdd yow nga tok fi sa pap lo wax rek mu def lo bëgg mu dox si doo yaa non même pas ngi ñëwaat kay. mooy yow sama xarit nga. waaw loolu bëgg na. moom nga dugg détail. dëkk bi nag dafa jàqu mais nak dama bëgg ci lepp loy dugg rek nga bay ci xel. d'accord waaw sama xarit nga. Mhm. su tamit bul faté li la dox la woon yaa ngi dégg. waaw loolu am benn problème pour ça. waaw jéem naa ba intégrer gàlle bi. Mhm. parce que doomam sax ñun ñoo bokk classe. au début daanu ma woon wax ak moom. Mhm. mais actuellement. vu la situation moom fexe naa ba. xaritoo ak moom instant yi seen kër lu ma neex laa fay def ndax papa ji def maa bëgg. dëgg la fekk lu mun a nekk rek lépp loo si def rek na ko def ak sa xel yaa ngi dégg waaw bul def dara loo xamante ne tàgguwoom. yow papa yow t'as pas à naa la yaay sama xarit lépp lu may def suba ba ngoon naa la ci avertir balaa ma koy def du noonu. maa ngi dem te ñëw dégg

et puis sax am naa benn appartement bu nekk fii à côté dama bëgg ñu dem fa ma jënd la reer ñu toog naan boisson xam nga dund lu neex ma yow. arrête là ça suffit yow comme tu me vois comme ça là niróo naa la xale bu jigéen bi ñuy invité appartement muy dem qu'est-ce qui te prend man sa rakk laa ci si war nga maa xoolee comme sa rakk lii ma wax nii tey bu mu ñaar. Hmm. jërëjëf merci beaucoup gis nga bu la yare mbedd mi nang ko ca wonet fa ngay na fa sap muy fi sant na la geureum na la boole te sa nday sa ba yalla na gudd fan bi ngay seet waaw ci ok ngi ci ma pas attends man nga bëgg toroxal non chérie man nga bëgg toroxal chérie lii lépp sekk la. sekk moom a bëgg a jaxase yow laa deful pour yow lan laa déggul pour sa jëmm ji kan laa defiyewul pour sëy ak yow. Oh, chérie bul ma déglu sekk sekk satan la sekk saytaane la sekk moom bëgg a jaxase ak yow sekk la ma ko wax ak li mu indi fii ça fait deux man benn nit laa am benn bëñ tey weex yow yaay suma benn bëñ.

demain samedi la mu yobul la xol boutique nga jënd lu la neex non arrêtez pleur s'il te plaît mais nag chéri bu lepp weesoo mais fa nga daan tek sa loxo muy neex mais delloo ko fa chéri ah namu na la chéri mel na nga meloon jamm gëna yok yokk suñ diggante ah bàyyil man góor la yow tamit hein ah, amu ñun goor ñi luy dundal suñu bakkan yi jafewul goor jamm rek la bëgg jamm nga ma daan defal dellul fofu gayen ah fàttali yooyu bàyyi jooy bàyyi jooy fële fële dixième xam nga dixième xam nga prison dix-huit heures booy xoolee ka xali xëppaaral ba ni foofu dangay li di nga réccu loo doon juddoo mbaat dangaa defal su ma xëyee dama lay indi hamburger nga nga nga ndékki midi ma indi ceebu jën ngoon tufe dangaa nax sa bopp di nga mel ni ku bokk foo xam ne amuñu dara mais am na yoo xamante ne yow waroo cee nekk yow war nga maa tontal samay digg nawle kii sama rakk la quand même. mais boo ko ci xool nga xool ci fabi. yow bu ma la doon toroxal dem dinaa ko demal ka ngay seetaan ci biir di wéet ak yow fii di wax ak xanaa damaa lu rafet beneen ñoo ne damay xaar ba mu taxaw ma la ma lay jàkk doomu bi dooma ci dugal laal ko ñu tëj la taxajoo ci moom yow gis nga gone bi fii la lay indi fii ci ndigg waxal ba la loo deful dafa metti ba tax na war nañu xool ki ñuy waxal ki ñuy jëflanteel waay waay man mi tout mal, tout mal, lui dit tout mal.